Euh, suñu benn wëllëre di suñu xarit ku ñu wax sëriñ Sidi Diagne mu nekk ex-CAF télécom di yëngu ci wàllu euh, technologie euh, moom mu yónni woon ñu nga xam ne li teraanga ji pour ñu indi ko jox jox leen ko ngeen defal ko ko ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi ne moom nag mu nekk jàmbaar joo xam ne ku bëgg lu baax la liggéey rek moo ko ñor lii nag mu amoon yéene def ko bi ñuy laataa um koor waaye ittey jamono xat-xayit dab ko ba léegi nii lay soog a agsi biñ ci jokkoo ci la ko yónnee ngir naa ñëw indi ko teg ko seeni loxo euh, di wax na it ne ngeen ñaanal ko bu baax a baax ndax euh, am na ci yéen yaakaar lool te doyloo na leen ci lépp nag ndax yaakaar jooju moo tax mu jël lii ci aw ñaqam tàbbal ko ci liggéey Sëñ Tuubaa yi euh, moom nag li muy yëngu xam nañ ko Excaf ku ko tudd xam na ci wàllu bouquet TNT ci lay yëngu Euh, xam ne it ne ànd ngeen ak moom ci liggéey bu bëree bëri liggéey boobu it xam ne ne gis na ci njariñ bu baax a baax a baax ndax bu ngeen ci duggul woon ànd moom ci liggéey boobu euh, mën na ne am na euh, njariñ amaana du law waaye kon nag daf ciy sant di baax di ci am mbégte di xamal it ne ndax àdduna mënoo tudd tudd àdduna te tudd Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa lu ko waaye defal maam nu may wax rawatina ci weer wi ñu nekk weeru koor boo ko defalee benn mu defal ko ñaar boo ko defalee fukk mu mu fulal la ko kon nag loolu moo waral mu yebal ñu ngir ñu ñëw jël teranga ji jébbal ko ko bëgg nag di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ko ci liggéey bi suñu borom defal ko ci ndam defal ko ci barke waaye rawati rawatina ma koy lancé waale murid yi taalibi Sëriñ Tuubaa yi euh, ñu xam ne Excaf maanaam euh, ab liggéeyam euh, liggéey lislaam ak diine loolu rek moo ko ñor kon nag bëgg nañ ñëpp jàpp ci ànd ak moom ci liggéey boobu euh, loolu mooy loolu lay sàkku ci ci ci ñi ngeen ñaan ngeen ñaanal ko ko waaye rawatina taalibe Sëñ Tuubaa yi ma leen ci woo ñoomit ñu xam ne liggéey bi suñu liggéey la jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Mamor ñu ngi lay nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu sëriñ Afia mi nga xam ne mooy njiit li ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew sëñ bu Lahad Bousso Moutalib mi secretaire général bi sëñ Abdou Lahad Bousso Mame Assa mi nga xam ne moo jiite commission sociale relation extérieure ak mboolem membre yi fi nekk sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno ma nga ne le président commission culture ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Afia ak turu daayira Muxaddamatul Xidma yëpp di la jotal ay kàddu cant ak ngërëm ci jëmm jooju nga xam ne moo la fi yabal jox la teraanga yu rëy yii nga indi ko ci barab bu màgg bi muy El Hadj Sidi Diagne mi nga xam ne moo jiitee ex Excaf Télécom ñu ngi koy sant bu baax a baax ci jëf ji nga xam ne jëf na ko te jëf ji daf koo jëfal boppam waaye jëfal ko itam mbooleem murid ji ndax barab bii day barab boo xam ne ni nga ko waxee lépp lu fi waaye def suñ borom dana la ko fulal ndax borom moo ko ñaanoon ne jumaa ji moom képp ku ci feeñ da nga feeñ ba faw ku ci nëbbu da nga nëbb ba faw gannaaw jëfam feeñ na ci nag am nañ yaakaar bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moo tege ci loxoom ne suñu borom dana ci def barke dina yokk moom ni ko waxee euh, xëy na dafa jaar ci tànki way juram ndax xam benn baas xëy na daana yëngu xam na daana yëngu ci mbirum diine kon nag moom bu ñëwee jëf-jëf ju mel nii jëfe ko jëfe ko ci sëñ Touba def na ko fi fu fu ko fu ko mat a def ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di xam ne daal daa daari Muxaddamatul Xidma fas fasante na moom ak moom kóllëre teyit it dina fas yéene kóllëre googu mu sàmm ko topp ko bu baax a baax a baax a baax euh, ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéey ci wàllu Excaf ndax ku ne xam na ne dañoo toll ci jamonoy communication te it ku fësal liggéeyu sëriñ bi itam soxla nañ ko bu baax kon nag moom itam ñu ngi koy woo ci wet googu yaakaar na ne moom dina am wax na ne sax dina am ay yeneen tànk yoo xamante ni dina ko gën a dox loola ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di gërëm di ko ci encouragé waaye nag di la gërëm yow itam ci sab taxawaay ndax bëgg lu bëgg lu baax di def lu baax yomb na yomb na waaye nag fexe ba itam képp koo xam ne gis foo gis njariñ jël sa waay dugal fexe mu dugal fa alalam aw ñaqam loolu itam day lu am solo te jëf jooju mel na ne moom nga ko jëfal ndax bi mu la ko waxee tegtal nga ko ci yoon wi nga xam ne bu ci jaaree man cee am lu baax man cee am ngërëm dañ cee ngërëmu Sëñ Tuubaa te mooy jëf ju baax ndax valeur bi mu fi indi valeur la boo xamante ni romb na un million trois cent ci wàllu xaalis ci ay ndoxak ay meew ak ay yu ni demee loolu ñu war koo jox jullit ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nga xam ne ñooy doge fii ci jumaa ji loolu yaakaar na ne ku sab liggéey nërta nangu sëñ Touba du la du la du la teg ci yoon woowu kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom yokk wërsëgam defal ko wér yokk war sëgam liggéey bii muy liggéey itam mu am ci ay ndam yu kawe njortu ñun daal daayira Muxaddamatul Xidma pare nañ pour ànd ak moom ci liggéey boobu ndax it liggéey bi mu yor daayira bi daf ko soxla te mooy fexe ba yaatal liggéey bi sëriñ ba foofu ay man nekk man koo gis kon ñu ngi lay yëbbanti ci moom kaddu cant yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci sëriñ Afia njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem membre daayira Muxaddamatul Xidma di ñaan ci barke weeru koor bi ak daraje Cheikhul Khadim yàlla na ci jajee ngërëmal sëriñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu